Ah, ginnaaw ba mu defee benn euh, communiqué euh, adressé ko ki nga xam te ne jàpp nañ ne mooy Guy Marius mi ko euh, bindoon une si longue lettre en quelque sorte donc pour wax ah, ci wàllu déclaration politique générale bi bu ko defam dina ko def donc loolu noonu àdduna ci moo tax tey jii nii ngir décortiquer loolu ah, ma daje ma teg fi koo xam te ne nii c'est un communicant journaliste juriste donc pour au moins mu expliquer ñu man mi nga xam te ne maay le sénégalais lambda ma a tenants et les aboutissants euh, esprit yeeg yëpp ci biir donc euh, Omar Seck Ndiaye lay wuyoo salaamaaleykum doyen. waaleykum salaam. plaisir la may ànd ak yow ah. waaw man it maa nga am mbégte dellu si fii. di euh, wax ak ñi seetaan ak ñi ñuy déglu. comme d'habitude bi ñu tabaskee ba tey gisante wuñu de. waaw donc c' est pour wax déwénati ñëpp ñuy seetaan. Mm-hmm. ak ñi déglu. di ñaan at bi ku nekk loo yaakaar. Mm-hmm. yàlla may la ko si. puis ñu koy tal di ko fekkee. surtout ça surtout surtout tal bi. am na solo surtout ça <laughs> yàlla nañu yàlla jàppale ba nga xam ne dañ koy fekkee te kenn du manqué. yàlla mën na ko. jërëjëf euh, Oumar Seck Ndiaye doyen li ñu ko dooree mooy déclaration politique général laaj bu njëkk bi avant ñuy commenter li nga xamante ne ni moom la Ousmane Sonko di premier ministre bi wax. ak li nga xamante ne moom la Abdoul Mbow di waa opposition bi ak itam ñi nekk ci pouvoir bi di seeni député wax donc ci gàttal déclaration politique générale esprit bi lan la wala lan moo nekk ci suuf ba tax coow lu yëpp am. waaw c'est que xam nga wàllum euh, démocratie. Mhm. dañuy wax ne euh, dafa am euh, séparation des pouvoir Mmh. séparation des pouvoirs dañ jàpp ne. Mhm. bu dee kenn mooy buur mooy buum. Mhm. di bummi. mun na yóbbu askan bi foo xam ne neexu leen. donc ku mel ni Montesquieu théorisé woon. ne Euh, saw tege benn euh, pouvoir. il faut nga teg benn pouvoir boo xam ne. moo koy rééquilibrer. maanaam équilibre des nga xam ne maintenant su kii déraillé am ko ko mën a gàgganti. Mhm. rappeler ko à l'ordre mhm. et puis surtout aussi respecte li ñuy wax cette séparation là cest que pouvoir exécutif am na lu ko yoon euh, sas. Mhm. maanaam mooy doxal administration réew mi doxal politique ak lépp lu jëm si wàll boobu. législative maanaam député yi. dafa am leen la yoon sat maanaam ñooy wote loi yi loi yi nga xam ne mooy wax lan la askan bi di doxee yu bëri si aspect yu bari ñoom ñooy voté hmm. maanaam ñoom ñoo moom loi yi maanaam ñooy ñooy tëral loi yi ñu buñ nee judiciaire judiciaire mooy ñu yor àtte bi donc mu nekk euh, pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire léegi moom benn séparation des pouvoirs hmm. léegi nag si séparation des pouvoirs boobu euh, chaque fois aussi euh, si ni ngi doxalee réew mi ñàkkul mu am ay ay ay ay ñagas-ñagas. Mm-hmm. et puis ñu ne léegi rapportu exécutif bi. Mm-hmm. ak euh, parlement bi. Mm-hmm. il faut aussi ñu xool nu muy doxee. maanaam ba mu xaw am benn équilibre. ñu ne léegi euh, maanaam su fekkee euh, parlement bi am na lu mu kontaanul. si exécutif bi notamment premier ministre bi mun na def li ñuy wax motion de. censure maanaam pour daaneel gouvernement bi mhm. mais loolu aussi bu ñemee foofu rek xam nga dootul am équilibre mhm. parce que day jekku mhm. léegi maintenant pour delloo équilibre bi ñu ne aussi euh, exécutif bi aussi euh, am na benn pouvoir aussi de dissolution maanaam soo ma motion de censure man mun naa la dissoudre donc comme ni ñu doon wax en temps de guerre. Mhm. mu nekk benn genre équilibre de la terreur. Mhm. maanaam doole yi dina xaw équilibré. Mhm. cest à kii am na lu mu ko yoon may. kii am na lu ko yoon may pour doole yi gën a mën a euh, yem. mais des fois dañuy wax euh, motion de censure xëy na des fois da nga naan est-ce bi yëpp jar na ko. waaw parce que soo xoolee histoire au Sénégal. motion de censure du lu bees. boo jëlee même nguuru Abdou Diouf nguuru nguuru Abdou Diouf euh, Djibo ñu ngi fàttaliku avant élection yi dafa beddeeku woon génn parti socialiste dem élection législative yàlla may ko mu am député yoo xam ne yu xaw a yemam yemale xam ni ñu koy waxee ci wolof léegi mu ñëw dugg ci parlement bi donc bii Lamine Loum di def euh, déclaration politique générale moom dafa beddeeku ne maintenant nekkatul solidarité avec parti socialiste parce que bokkatu si mhm. mais parti socialiste boo nekkoon majorité à l'Assemblée mu jul fenn ñu ñëw si nguuru Ablaye Ablaye Ablaye Wade bi Ablaye Wade jëlee nguur gi kan moo dem euh, kii euh, Madior Boye moo dem déclaration moo njëkk dem déclaration euh, dem na déclaration politique générale bi mu demee déclaration politique générale Moussa bi nekkoon jëf jël à l'époque mais dafa am question problème si les bons impayés mhm. loolu moo doon prétexte pour motion de censure bi mhm. mais aussi ak majorité bi mu mhm. euh, <laughs> jul fenn effectivement bu ñëwee si Ablaye euh, bi euh, Abdou mbay demee def déclaration politique générale opposition bi dañ ko accuser mhm. ne abdu mbay dafa blanchir xaalis boo xam ne Hissène Habré moo ko rawale indi ko Sénégal si benn banque boo xam ne moo ko doon diriger d'accord maanaam loolu moo doon prétexte pour motion de motion de censure foofu tamit dafa dafa nasaxaay mu jul mu jur fenn bi ñu paree loolu aussi ñëw si euh, bu mujj bi bu Amadou Ba Amadou Ba à l'époque am na ñu alerté woon. Mhm. parmi lesquels député Mamadou Diallo. Mamadou Diallo mais am na benn manquement parce que assemblée bi charte bi ko lal li ñuy wax règlement intérieur. Mhm. tegul yoon. Mhm. est-ce que amul danger bu muy bu ñuy bu ñuy gete. effectivement moom mais boobu aussi euh, Guy Marius bi aussi su lu ñëwoon na ko. mais. xam nga aussi boo amee doole. da ngay tànqamlu. da ngay tànqamlu loolu neex nga def. Mm-hmm. ñu def ko mu jàll. mais li ñuy fàtte mooy aussi. Sénégal mus na am euh, motion de censure bu daaneel gouvernement. mus na am motion de censure mais boobu mais boobu mais boobu c'était pas lié à la déclaration de politique général mm. boobu Mamadou Dia moo doon président di conseil. jàkkaarloo Senghor ñu am ay jafe-jafe bu ñu fàtte temps yooyu président du conseil moo ëppoon doole. <laughs> Hmm. waaw parce que moo yoroon euh, assemblée bi temps régime bi xawoon na euh, ce n'est pas pratiquement le même régime parce doole bi ngoon si assemblée bi moom Mamadou Dia moo doon président du conseil mhm. léegi bi mu xawee amay jafe-jafe ak Senghor am député yu buggoon ñu yokkal leen maanaam loolu mooy lay bi daal maanaam ñu yokkal leen yokkal leen seen ay ay ay payoor mhm. léegi euh, mu bañ mu indi ay jafe-jafe mu am ñu si jàpp ok léegi aussi aussi requérir yeneen force yi bu am ay jaxasoo yu bëri xëy na loolu beneen histoire la. beneen histoire mu ne ñu mais euh, motion censure bu sa daaneel moo daaneel Mamadou Dia mais boobu c'était pas dans le cadre déclaration de la politique euh, euh, générale. Mm-hmm. donc loolu moo maanaam pratique démocratique ak delloo équilibre des pouvoirs. Mm-hmm. maanaam yemeele exécutif ak législatif. Mm-hmm. su kii amee gànnaay jox ko tamit gànnaay mais bu ñu joxee gànnaay jox yi gànnaay esprit bi. du pour bu ñuy xeex. Hmm. parce que du xeex mooy mooy esprit bi. esprit juste mooy équilibré esprit déclaration de politique générale bu kenn dominé trop maanaam day yàq. Hmm. parce que dañ ne démocratie aussi waroo def lu la neex. Hmm. topp sa buggu buggu topp sa bakkan. mais donc bu leen joxee yenn pouvoir yooyu kii motion de censure kii euh, pouvoir de dissolution du pour ñu koy xeexee. parce que aussi dañ naan pour euh, nekk ci digg bi waaw waaw dañ naan aussi euh, loolu mooy am problème bu au Sénégal c'est-à-dire que chaque fois dama koy appelé. débat politique bi. Mhm. c'est trop trop trop. dafa am passion boo xam ne moo si nekk. sax nit ñi dañuy euh, euh, jàmmarloo. Mhm. te li may fal di fàttali mooy dès 1900 amoon amoon a benn femme bu ñuy wax Simone Weil. Euh, mhm. maanaam dafa am Simone Weil ak Simone Weil li nga xoolee lu jaawale. d'accord Simone Weil politicienne la woon. nekkoon France moo doon mouvement féministe boobu ñu ko bindee ak V. ak Simone Weil boo xam ne kooku poli kook philosophe la. mooy avec W. waa mooy W kooku philosophe la. d'accord defe naa woon parti politique yi ñoo nar a toroxal dëkk yi. Mhm. parce que parti politique yi du ñu doxee éthique du ñu doxee intégrité maanaam seen nguur ak seen sago. seen bëgg-bëgg rek jar na lu nekk. Mhm. bu joxe exemple ne boo xoolee bu yàgg ba moom en fait li muy wax. ñoom c'est référence ñoom occidental maanaam soo xoolee ay Platon soo xoolee ay Kant ñun ñëpp si ñoom pour ñoom nguur éthique justice égalité moo koy doxal. d'accord donc nguur gi du am sañ su def yenn affaires yi. Mhm. mais ku mel ni Machiavel am lu mu indi. Mhm. maanaam la fin suit les les moyens. d'accord maanaam éthique boobu dafa deñ mhm. léegi euh, si la Simone Bay waxoon ne en fait parti politique yi amuñu njëriñ parce que li ñuy créer wala ñu créer ay dialogue et suñu nee dialogue mooy xam nga tubaab dafa créer benn baat bu ñu naan. ban euh, euh, a à fleuret moucheté. maanaam fleur moucheté mhm. benn xeetu épée la maanaam nit ñi xeexukaay la daal idée euh, bi xeexukaay mais xeexukaay bu am civilisé ak classe mhm. maanaam bu ñuy werante c'est-à-dire finalité bi du pour ma rey la du pour ma gaañ la du pour ma toroxal la. mais pour luy moo tax ñu ne a affleurer a moucheté. d'accord benn expression la maanaam mooy. c'est-à-dire a xeex ak civilité. Mhm. ci ay argument di waxante dëgg si ay waxante si waxante dëgg. am bëri paas mu fi delloo waxoon naa la aussi le mot euh, débattre. lan moo ko taxoon jóg. lu maanaam finalité bi mooy du ñu jàmbarante. Mm. de baat lépp loo xam ne mun nañu diviser ñu mun si ñu mun ko moytu nekk discussion bi dans la civilité mais dafa am passion léegi tey aussi lan moo indi passion bi. bii baax. Mm-hmm. si euh, parce que du lu bees wax naa ko xam nga du lu bees c'est pas Sénégal nag musa am. Mm-hmm. mais passion bi aussi mooy contexte bi. Mm-hmm. contexte mooy. lii gën a feeñ si souvent observation yi euh, man ni ma xoolee ren nit ñi c'est-à-dire ñuy xaaroo déclaration bi. politique générale. daa mel ni man ku nekk yaa ngi di naan daa fanaanal. Hmm.